di beral nuyoo bi ki woote tey jii ba tax na ñun doomi soxna yi wala doomi daara yi génn seeni daara daal ñëw wuyu si ko xam naa yombul wax na dëgg ndax ñun dañoo bokkul fenn bokkuñu ci benn parti jënduñu carte benn parti ñun daal ay nitu daara lañu ñu nitu diine la ñu tuukuur suñu gisee nag kuy jëmale réew mi ci kanam danañ ne ko continuer te dox te dem kàddu gii may waxit noonu la engagé Serigne assen Gueye laay mi nga xamante ni maa moom du ñar kenn lañu tey jii ci man la jullee ajjuma te xawma nit mi ngi ñëw te xamul nit dana ma fi fekk te tey jii maa tax mu ñëw fa may jullee ñu ànd fa bokk fa jullee wax la ñuy wax joxantuwaat rendez-vous faf ñu day waat fii kon loolu bu dee am day mel ni sëñ Babacar li wax dëgg la ñun nag en tant que euh, euh, ay homme religieux waaye it lislaam ñun ñu koy jàngale ci niveau bu gën a kawe ci réew mi ci université yu mag yi dañ koy déggee mooy al islaamu diinun wa dawlatun l'islam lu ñuy julli ci jàkk yi la ak yi la waaye état la l'islam état la ginnaaw l'islam état la nag te ñun dañoo seetlu dañoo am seetlu bu baax a baax ndax léeg-léeg ñu wét wax daane ah gars ñi dañoo jàpp ne ñun borom bolo bloqué guddi yi ñu dara mos naa ko wax kenn ci premier ministre man ko fa gaañee yam fa la ñu tàmbalee kon ko yabu téye ci nitu daara ñu seetlu nag Serigne Babacar mii ñu gis liggéeyam gis taxawaayam gis bëggam lu baax gis jubam ñu ni yow daal loo nekk danañ ci ak yow kooku ne am na ci droit ginnaaw nag loo nekk danañ ci ànd ak yow kon bu fekkente ni yaa ngi sos mouvement boo xamante ni da nga ni dooleel Macky te nga am ci droit bu baax te ñun liñ ñu jàngal te ñu jàng ko mooy buur du fal boppam yàllaa koy fal te am benn kilifa gu mag ci réew mi di Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine daan ni jaamu yàlla gi gën a mag ci jaamu yàlla yi mooy nanga dogal bi yàlla ñun nag ñu bokk ci ñu nanga dogal yàlla xamuñu lu tax yàlla jiital maggi yàlla mi xam nag ba jiital ko ñun dañuy ànd ci dogub yàlla te di ko jàppale di jàppale ku koy jàppale suñu baat ci kaw waaw duñu ay politiciens bokkuñ ci benn parti waaye ku yàlla jiidal ci réew mi xamuñu lu tax te li tax yàlla jiital ko ñun xamuñu ko te nit day nangu dogalub yàlla dogalub yàlla nag mooy Macky ci réew mi kon ku yebu jàppale ko ba nga jógee di ko jàppale wax ñu ko lii tàggu nga ma ci waxtaan nga ci man guddi waxtaan nga ci man bëccëg ma appuyer li ci ni la doxal ñu ngi ci sa ginnaaw ñu ngi lay jàppale ndaxte ñun xamuñu mag yi président la ñu xam président nag mooy njiital ñëpp képp ku wan sa kilifa gannaaw nag wax xaw ma foo jëm kon loola moo tax ma jàpp ni damay wax ak opposition bi ni leen am nañu droit critiquer am nañ ko am nañu droit gis lu baax ñu wax ni baax na waaye may wax ñi ànd ak pouvoir bi ñoom wax warul leen jëfa leen war émergence du slogan mentalité la émergence mooy da ngay jël les hommes qu'il faut à la place qu'il faut jël ñi xam te mën a liggéey nga teg leen ci yow de yaakaar naa ne ñi la tànn noonu juumuñu ndax yëg nañu ni impôt et domaine porte yëpp ubbi nga ko ba tax na lu ci waay xamul woon xam nga ko ci lu ci waay bëggoon am nga ko ci ba tax na Thiès gi ñëpp foo de foo ni Babacar Pascal Diop ñu ne eskay ndax ñun ndax ñun wax dëgg yàlla ganaaru kenn nenuñu nag loolu yàlla dogal kenn it yilifuñu mbedd mu ñu neex aw suñu dépensé kenn yuru ko kër Cheikhul Khadim ka ma ferenku laayu su ma génnut it keroog laay gën a dund as wóor naa seen meeg Zakaria kon kon Babacar ñu ngi lay jàppale ñu ngi lay ñaanal ci barkeb Cheikhul Khadim ñu ngi lay ñaanal ci barkeb kilifa yi ci réew mépp ñu ngi lay ñaanal ci barkeb maam yi waay ji Serigne Assane Gueye laay suñu borom jàppale la ndax ñu mel ni yow bu ñu leen jàppale réew mi jëm ci kanam réew mi ñaar rek la soxla ko xam te jub te xam nga jub nga kon boo xamee te jub nag président jox la ndigal kilifa la jox ndigal kon xottil te dem Serigne Baye Jaxate nag dañu woon loolu laa lay dénk na ko bàyyi xel te jàpp ko wala nga bind ko sax wala nga enregistré ko <laughs> dafa ni wàllu akub yoneen akub saaba ak ku mas ñokket witig njub nit ñi sam na wàlliwu akub yoneen akub saaba ak ku mas ni ñoo ket wutik njub ñëpp sam la di xàppati waaye nga la doxal tamul gees boo dëng dëg ma leen lu baax da nga dégg lu nekk da nga gis lu nekk waaye na nga way ndax président li mu am waye ko ko indi akub yar lu way mën a wax ku yaru la loolu loolu loolu ma seere naa ko looy mën a waxit it du nit ku violent kon kilifa dañ koy jàppale li ñu koy jàppalee mooy jàppale ko ci njaboot gi di teel a xëy di guddee wàcc jàppale ko ci nit ñi dugg ci nit ñi ba ñu tëj say bureau ba ñu tëj say portable lu lu ñu xew la gis la te yow lu ñu xew la gis la looloo waral Touba laa jëm su ma fi gii Touba laay fanaan incha allahu rabbi waaye boo wootee danaa ñëw moom boo wootee danaa ñëw ku mel ni sëñ Assane Gueye laay dana ñëw ndax am na ci loo xamante ni def ko wareef la xubbul watan minal iman rasulullah yoo ko wax képp ku bëgg sa réew bokk na ci gëm yàlla bëgg sa réew nag mooy président ba koy ba yàlla jiital mu xalaat ndax amul benn président ci àdduna bu bëgg réewam des ginnaaw amul ginnaaw nag amul benn président bu jiite dara bëgg mu des gannaaw yow mi bëgg a jàppale réew mi jàppale ko te kenn du fal boppam yàllaay fal nit ñi ku noonu ma xëy falo kenn du ko xam ginnaaw nag yàllaa ko fal man Ibrahima daal maa ko mel ni man ànd nañ ci dogalub yàlla ñu ngi jàppale ma ko salaam di sant sang-sang yi Seydina Mouhamed sallallahu taala alayhi wa sallam di gërëm du yóbbanteeg cant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di sant sama sëriñu bopp bi am alhaji Malick Sy radiallahu taala anhu di gërëm nag sama xaritu bopp muy sëriñ Babacar Sy tey nag sama xol dafa sedd ndax képp ku ma xam di xam ni man ci li may jublu ak ku mu mën a doon ci def lu baax lay ànd ak nit ku mënta def lu baax doo ànd ak man ndax dama gëm ni yàlla binduñu ngir ñu ñëw ci àdduna ngir sonal ay jaamam Babacar jazakumullahu xayran yàlla na la yàlla bindal yiw yëpp yaa bi man duma tagg nit ndax lu nit am am naa ko dama lay wax jërëjëf ndax yaa ngi jàppale waa Thiès lu ma neex la man dëkkuma Thiès gan laa fi mais tey suñ ma doon wax lan nga gën a bëgg ci àdduna man leen Thiès développé Thiès Thiès développé mooy sama xol li tax mu nekk sama xol mooy yàlla daf ma fee teg nattu bi yëf yi mettee lool ñépp ragal ne Idrissa Seck moo fi nekk kenn du fi dugg ma ne fi laay dugg boobu ñu ñemee bariwul woon de ba ma duggee ba pare amul état amul personnalité politique amul kenn ku ma dimbali man dong maa doon defal sama bopp ba ma tàmbalee ba tey kenn mësuma cee fekk si te li may def mooy lan mooy dimbali askan wi nga xam ni yàllaa leen fi wàcc ñu sonn te ku ñëw jariñoo leen ba leen fi dem du sotti il faut que ñu am ñoo xam ne dañuy ànd ak ñoom di leen jooyal seen naqar man ci ñooñu laa bokk ba keroog bi ma gisee Pascal Babacar ñëw seet si ma waxtaan ak man wax ma li mu bëgg keroog damaa kontaan lool li tax ma kontaan damaa xam ni yàlla tey boole na ma ku am fulla ku bëgg boppam waaye ku xam li muy def moo tax li nga jublu nag dama lay wax bu ci ragal dara bu ci ragal dara ndax ñi tàmbali woon kenn bungeewu leen yow bi nga tàmbalee am nañu la bunge ndaje politique yi nekk Thiès yépp képp ku nekk APR Thiès wala nga doon xeex ci politique Thiès ñëw nga ci man ne ma dimbali ma ma ne la maa bañ li may wax duma ko nëpp bu doon dañuy wax popularité ci Thiès ci nit la koo xam ne dafay nekk sëriñ nekk biir Thiès di doomi soxna ba pare ànd ak waa Thiès di leen nax bokkuma ci man bi ma duggee Thiès ba tey amul kenn koo xam ne defe naa ci sama ci sama entourage ak ñi ma xam koo xam ne def naa ko lu ko naqari wala ma def ko lu ko metti wala ma am soxlaam ma xeex ko ci damay bëgg li ma am ma jox leen li ngeen am ngeen denc te defe naa bu fekkee ne ay jullit rekk lañu tey wax dëgg rek te yàlla tax amul benn jullit bu mën a taxaw fii ci Thiès ne sëñ Assane mas naa yëkkati ñaari téeméer jox ko ko amul musuta am du ministre du député du kenn ndax ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la te des koy wax tey Pascal mii ànduma ak moom parce que daf maa jox benn terrain ànduma moom parce que daf maa jox xarum tabaski ànduma moom parce que daf jox 1000 francs mais barke Seydina Limaamu mu soxla woon ay millions tey ma génne ko ngir ànd ak moom ndax jaral na ma ko waaye nag du ma ànd ak ñaari nit de du ma ànd ak ñaari nit parce que li ma gëm laa gëm Macky Sall président Sénégal la mais du président wërsëgu benn doomu aadama yàlla bi nanu ko gëm yàllaay jox lu ko neex jaamam li nga nekkee yàlla la ko teg te di nga dem ba ca kaw a kaw a kaw barki Seydina Limaam bu yàlla dogalee nag tey professeur bi nga xam ne alxuraan a ko ñor professeur bi nga xam ne yàllaay cërëm professeur bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba lay nokkee toog ba mu neex ko mu ne ma sëñ bi foo ne ma ne ko maa ngi dakaar mu ne ma àjjuma fooy jiite ma ne ko damay jiite ci yoof mu ne ma bàyyi ko nga ñëw julli ci man ma bàyyi loolu nga ñëw julli nga lu du moom laa njëkk xam ni sëriñ ci Thiès li ma xam ci sëriñ Thiès bari na trop mais barke alxuraan ñëpp laa ci amal jàmm de man mii xaw ma keneen de mais sëriñu Thiès yëpp am ak man jàmm xam nga lu tax sëriñ boo bëggee yàggat moom doo wut daraja daraja soo ko amee ci kanamu sëriñ mu bàyyi la ak sa daraja mere la ndax daraja la bëgg ba kook darajaam bu fekkee sëriñ ba alal la bëgg yow jëlal ca la nga am tumbaat dollil ko ca la mu yor wan ko ne ko la nga yor yaa ko moom yàlla la ko jox jëlal waaye dolli naa la ci di ngeen jubóo de ab sëriñ bu tegee ne moom fii nga koy yem waay waay bu ko weesu waay bul ñëw këram <laughs> bu la soxlaa seet si la te defe naa man nag neex naa namm de wax dëgg yàlla koo xam ne doo du la namm seet si la te boo ko seet see am jàmm kooku neex naa seeti kon nag yéen li nga xamante ne seen objectivité la ngeen gëm ko gëm ne que ñun ay sëriñ yu moderne lañu nag du ñu ay sëriñ yoo xam ne <laughs> bu subaa altine du ñu liggéey de dañuy liggéey de man bu ma xëyee damay liggéey ba 7 ci ngoon ma ñaq ba tooy xepp mais bu ma liggéeyee altine ba ajjuma li may def mooy lan laa mën a dajale ba yóbbu ko Thiès ñi nga xam ne yaakaar nañ ma duñu torox barki alxuraanul karim man de loolu laay loolu laay dund de Macky Sall sax xam na ne man loolu laa gëm man ak benn sénégalais boo xamante ne fii tey dinaa ko wax tey mu ngi tudd Doudou Ndiaye Mbengue di ab waykat dafa am kilifa bu ko jox ko alal ju bari baa ngi toog ne ko jàppale ma mu ne ko jàppale ma la ndax ki day gañe fekk dañoo làqatu ma ak moom waxtaan ba noppi ma ñëwaat ñu woo ma man waxaat ma loolu man leen lii bëri na trop bëgg naa ko mais dama ko nangu ñu ne ma lu tax man leen parce que kabañoon maa tax mu bañ te li tax mu bañ dama koo gëm moo tax ma bañ tey jii ku nekkuloon xaritu Macky Sall xaritoo nga ak moom xam nga lu tax pouvoir ku bëgguloon mag Macky tey bëgg nga Macky ndax pouvoir mais ay waay góor ñi fu ñu ne ñiy gëm dara fu ñu ne ñi nga xam ne bu neexee ñu xam ne yàllaa fi de su naqaree ñu xam ne yàllaa fi ne ñooñu fu ñu ne Babacar Pascal Dione mii dafa toog ca biroom di liggéey wallaahi barke alxuraanu karim li bu doon am doy na ko sëkk pour mu dund nekk ci bàddee xam du wax ak Macky du ko sori ndax xam nga kilifa du ci gën a bon boo ko soxlaa jege ko ñaar dong la lay doy mu dóor la maamu sant la te comme Macky moom yat la yor moom te moom bu ko neexee dóor bu ko neexee léegi nga fecc léegi du yàgg il faut mu tànn ba ngay xamante ne moom la demal mu ba lépp moom xam ne teraangaam nekk na ca mu jël lépp teg ko ne comme waa dëkk bee soxla te gis na ne Thiès gii dafa demul Thiès demul billaahi Thiès demul fenn ñi ñu jël yaakaar ne ñooy demal Thiès yóbbu ñu Thiès fenn ndax sama maamay diw dafay romb ndax ku sëy naa li maamu di sa maam koo gis keneen di maamam doo ko ñee dama ne sama maam maamay diw amatul njariñ fexeel ba doon ko wala nga nuru ko wala ngay jëfee jëfam du la neex rek nga taxaw sab koñ ñëw ne yow président da laa fal waaye président ba mu lay fan juddu waale woo juddu waale woo nekk ministre judduwaale woo nekk député yàlla moo la tàggat ci kantanam def la ko neex ci yow ba nga doon la neex waaye ba mu la koy def yow xalaatoo woon ni ëllëg la mu la dénk pour ñii la ñii yor dara nga ñëw yor ànd ak ñoom fàtte leen boo fa daan ñëw samedi ñëwatoo boo daan ñëw dimanche ñëwatoo kenn xamatul foo nekk bu ko ak élection jub see nga ne nañ dem Pascal ñoo na fa nekk moom toog ak nit ñi sonn ci nit ñi bay bëgg a dee naa ko puus ne dëkku fa ñu ñëw votel keneen loolu mooy lan. gis nga ab dëkk naa leen wax ñaar ka fa dëkku la gën yenn saa yi ku fa dëkk ndax kay def ca dëkk ba bokkul kay toroxal dëkk bi bàyyi leen di sàkku nattu ci seen bopp di jël nit ñi naan yéen la yéen la jooju ngeen di wax bu neexut yàlla du doon kenn ca ñooña mais kii moom la barke alxuraan moom la de soo leen ko nangoo parce que ki neex a jàppal mooy ki xamul tumuranke kii bi muy nekk agent de la fonction publique assermenté ci li muy liggéey tey wut ay diplôme am ba am ko ñun ñii ñëpp kenn fayalu ko ci jàng li mu doon du sens mérite la nañ bàyyi sens la sens ak lu mu mën a doon ëppul doole mérite déedéet ndax sens kat li ci gën a doy waar da koy am tey am diplôme ba nga bañoon ne moom nga gën a bëgg am bu subaa ñu suul la ak moom. ana sens ba waaye mérite soo ko amee da ngay daal di boole sens ak lépp mu doon mérite doo ñàkk dara mu dem ba am ay diplôme am yàlla dogal mu di déposer candidature à la fonction publique ñu jël ko recruter à la fonction publique mu nekk un agent de l'État juré de dire la vérité et d'en faire d'exécuter les attributions de la fonction publique à sa part il est devenu aujourd'hui ce qu'il est devenu grâce à sa personnalité, à sa dignité, à son charisme. C'est pas un petit responsable. C'est un directeur général, comme tout autre autre directeur général. Il occupe une poste très importante dans le développement de ce pays. Et Sénégal tey parmi tous les gens yi nga xamante ne ñoom lañ dénk moom rek moo fi def résultat bi mu fi def en un temps record pour que la fonction publique puisse rentrer dans ses pour ses kii rek ko fi def waaw mais loolu yombul nañuy wax merci et dire à César à partir ce qui à César qu'on le doon à César waaye duñ fekk ce qui appartient à César ñu jox ko mbay mbay day yaakaar ne moom moom réew mi du dem nañ bàyyi naxante réew mi feebar bi fi am duñ ko faj mooy soxor da ngay fanaanoog nit ba yeewu bërset yëkkati sa alal jox ko mu dépensé ko bu subaa ñi lay sàgg moo ciy jiitu boo waxee mu ne ak a bon nit ku bon ki tekkiwu dara pourtant ki tekkiwu la lay dimbali ba ngay lekk sa njaboot te doo ko wax waaye boo yeewoo suba teel moom nga naan moo fi gën a bon te yàlla naan kii mooy gën ci moom ndax mooy ki koy téyel jaamam ñooñu la gëm moo tax mu di ko dolliwaat moom di la xañ ngay sukkandiku ci moom nag bis boo yeewoo ñu di ko jox di la xañ yow jël sa wërsëg it dolliwaat ko muy gën a am ngay gën a ñàkk naan yàlla nag lu tax te yàlla xam nga lu mu gën a bañ ku naan lu tax mu def ko moom liberté la am ay yàlla bëri liberté waa ji nee na droit de lom nit amu ko yàllaa ko moom fu droit nit fu mu amee droit koo xam ne bu ko yàlla na day rey du ko tàgg kooku ay droit am anamu man nag li tax may waxtaan nii dina xaw a jaaxal ju bari nag waaye nag xam nga yaram bu tàngee ci ku ko tàngal nan koy bàyyi xel ci la muy wax nii tey billaahi barke Seydina Limaamu lenn lu ci nekk dëgg la waxuma pour lu ma neex de bu dee kër gu rafet yàlla may na ma ko oto yi rafet am naa ko soxna yu rafet nag dama leen bëgg ba bëgg de macha allah ñoom ñaar ñëpp euh, yàlla dogal na si naa limaamu sama xarit bi sama pap sama maam ju baax yooyu jox na bu baax ma dëkkee fa ndeysaan xam li may wax naan gis nga murid yi ñi lenn rek lañ leen ëppalee ñun ñun ci boor géej lañ dëkk ñun amuñu tàngoor day sedd rek yenn saa yi nag moo tax dañuy gaaw màgget ñoom nag dañuy bay day gën a baax seen yaram day gën a renforcé ñun loolu la ñu wut ak ñoom ñun nag ñoom nag ay cousin lañu bëgg naa Sénégal ñu xam ne ku wax ci sëriñ Touba ci Seydina Limaam nga wax bëgg naa mu leer léegi ku wax ci Serigne Touba Seydina Limaam nga wax ki wax ci El Hadj Malick ci Serigne Touba nga wax sëriñ Touba El Hadj nga bokk maam na wax ji leeraat sëriñ Serigne Mansour mi la defar. asu sekk ko jur tànnaana ko jur surtout Seydina Limaamu Laay la sëñ Mansour ñaari maam la am Seydina Limaam mooy maamam Alaaji Maalik Gay mbaam waa ñooñu loo leen di xàjjale dañ koo mën kon nag yàlla nañu yàlla dolli sutura lii ngeen tàmbali nag man nag man damaa malaat sax dama ne woon du ñëw de mais Babacar lu mu xewle ñëwuma ca te lii nag ma bokk ci ñi ko sos te képp koo xam ne am naa la man ndax kër gu nekk ku nekk ak ña nga àndal am na ci ñoo xam ne nag ànd nañoo man Cees gii defe naa buñ ne euh, Joobaas waa Joobaas defe naa xam ngeen ma xam ngeen ma ndax seen àll boobu defe naa lu ne laa fay def at mu jot lépp lu ma am nag jàppale doomu aadama yi ma ñor képp koo xam ne nag féete nga ci man képp koo xam ne ànd nga man ci Thiès gi man ma dëkk boole naa la ak Babacar loolu mu xewle bokk ca ànd ceeg moom mu neex wala mu naqari bu la ca dara jëlee lu mu la joxul ñëwal ma jox la alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di leen jéggalu yéen ñëpp nag di leen baal wàq ci sàkkum laa wax